dénkaay ri soirée et fils mo len di may sen khutba aljuma juma serigne Murtada mbake ci Grand Chess. ginnaaw bi ñu sant wa taala julli ci yonent bi alayhi salatu wa salaam dañuy del ci rafet jikko ak tal jëflante bi ngay jëflante sa digganteeg say morom ndax amna solo lol ndax alquran daf ko feddli sunna yonent bi alayhi salatu wa feddli ko moo tax kon rafetal ay jikko ak rafetal ab jëflante ñu war koo jox yitte ju rëy rëy te itam njariñ li nga xam ne rafeti jikko am na ko mu ngi feeñe ci mbir yu bari bokk na ca bokk na ci li ñuy natte mbaax nit ki bokk na ci li ñuy natte ngëmam gu mat bokk na ci li waral nit ki am wàccuwaay bu mag ca biir aljanna ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na woon ñi gën ci yéen mooy ñi gën a rafet ci yéen ay jikko mu waxaat feneen ne ñi gën a le ak gëm ci way gëm yi mooy ña ca gën a rafet ay jikko mu waxaat feneen ne ëllëg bis pénc ca yowmal qiyaama ñi ma gën a jege fu may toog nga xam ne fa may toog ñoo may gën a jege te ma gën leen a sopp mooy ñu amoon jikko yu rafet te bokkoon ci sama xeet bañ nekkee àdduna moo tax nag sunu borom tabaaraka wa taala bim beugé tag yonnati bi ali alayhi wa salam ci jikko yu rafet lako tagge mune wa innaka la ala khuluqin azim waaye taggewu ko ci lenen mu waxat fenen mom yonnati bi ali alayhi wa salam ne amut len lu ñuy teg ca balance ñi ñuy aw yu ëlëk yowmal qiyamah lu gëna a diis nit ki am ay jikko yu rafet ndax neena borom jikko yu rafet dana ca mëna amé ci tuyaba ak daraja lo xamanteni kay wor ak julli sax mënu ko am kon nak ka boole woon ak julli ak am jikkoy rafet nag moom waxuñ ko te kat jaamu yàlla yi li muy bari bari bari yi ñuy jaamoo yàlla li bari bari benn la ci tuyaaba ja dul mat lu dul ne jikko yu rafet daf caa ànd moo tax yonent bi alei salatu wasalaam waxoon ne kiy woor sax ak li woor di am solo lépp su may di wax wax ju ñaaw ak jëf ju ñaaw du am ca lam doon wut ca kooram googee ndax nee na woon ku nanguta bàyyi wax ay caaxaan ak i neen nanguwoo bàyyi di ko jëfe sunu borom amul soxla ci ngay bàyyi sag lekk ak sag naan mu waxoon na itam ku bëgg ñu jéggal la ginnaaw boo defee sag aj ba noppi nee na bokk na ca lay war ñu jéggal la nga boole kook nag melowoo ay jikko yu rafet mu ne woon ku aj màkka te defoo ay caaxaan waxoo ko wane fa ak caay-caay mooy say jikko dafa rafet